ngi nuyu ñëpp bala may commencer sama waxtaan damay sant waa Thiès d'abord nga xamante ni tey bés bii ñu woote muy ñaari fanu euh, consultation médicale gratuite bi nga xamante ni mouvement Siggi na ak bu nekk euh, da koy woote pour permettre askan bi nga xamante ni euh, des fois dem hôpital daf leen di të ndax moyen parce que ñëpp xam na ni faju fii si réew mi dafa xaw a cher moo tax tey si activité yi ñuy am si vacances ñu ne dina def ay activité citoyenne parce que nous notre pensée mooy toujours lan la ñu mën a defar sur askan moo tax à tout tout moment ñi may àndal ñëpp di sa collaborateur yi vacance bu nekk dañuy jéem a def ay action yoo xamante ni askan bi nañ si seen bopp moo tax tey ñu wootee euh, deux jours de consultation médicale consultation médicale nag gis nañ ne tey spécialité yi am ci médecine yëpp indi nañ ko fi parce que am na ñoo xamante ni des accessibilité bi moo leen di xaw a euh, tiitloo ba du ñu mën a dem hôpital moo tax tey dañu transfert hôpital bi si quartier yi bu ko defee nit ñi dinañ mën a am xel mu dal ak fit pour ñëw ñu xool seen bopp si loolu nag def nañ fi euh, euh, euh, ophtalmologie mooy ñi nga xamante ni dañu am problème mu bët parce que ñëpp xam na ni kat feebar bët def xaw a cher parce que ku ñu consulter prescrire ay lunettes dafa xaw a moo tax tey ñu mettre à la disposition des populations deux mille lunettes yoo xamante ni c' boo ñëwee dañ lay xool jox la ay lunettes nga dem euh, nga takk ko mais également am na fi ay médicaments yu bari yoo xamante ni boo demee seet sa bopp dinañ dem offrir la ko gratuitement Et, et, que loolu mooy importance su tey bés bi nga xamante ni moom la ñu wootee pour permettre nga xamante ne am nañ feebar yu si mel nii feebaru de euh, cancer euh, parce que léegi loolu tey war ni communiquer mooy le dépist le dépistage du cancer du col de l'utérus parce que dafa bari ci jigéen ñi donc tey je pense que tey permettre na ñu bëri ñoo xamante ni daaw ñu dem hôpital ñëw fi ñu defal leen ay dépistage mais également am na fi euh, ay urologie am na fi cardiologie mais également am na fi ay dentiste yi nga xamante ni tey ñoom ñoo fi ñëw bi ma demee visiter euh, salle dentaire bi li ñu wax mooy am na presque quatre vingt pour cent yi ñu consulté ay extraction am na ñoo xamante ni dañoo am ay jafe-jafe bëñ mais amuñu moyens yi donc tey permettre nañ la population ñu ñëw. ñu faj leen te ñu loolu su amee dañ ciy sant son excellence le président Macky Sall mi nga xamante ni moo wootee année sociale ku xam nag ah, Abdoulaye Dièye xam ko ni c'est le baron de l'action sociale moo tax tey ñun lii mënuñu si woon des ginnaaw moo tax année sociale boobu son excellence le président Macky Sall wootee di di di profiter si di remercier le président de la République Macky Sall bi nga xamante ni mu ngi jël euh, euh, Euh, ay moyens yu bëri di ko def ci santé parce que gis nañ tey hôpitaux yu mu fi teg nekk ay hôpitaux moderne ñun nag ñi nga xamante ne ñu nekk à la base li ñu mën mooy ñi nga xamante ne amuñu accessibilité pour dem au hôpital mën leen ko yombal donc nag loolu tey moo doon sababu bés bi te it mu nekk loolu loo xamante ne ni ñun mooy suñu gëm-gëm mooy suñu conviction man Thiès rek laa am population Thiès laa am on toujours vraiment di jàppale askan bi si seen préoccupation sociale. président boo ñu ko mayee gis nañu choix bi président war a def ci élection présidentielle am na ay jafe-jafe yu am ci euh, biir Benno Bokk Yaakaar te bu gisee candidat yi ku nekk di wax am. waaw man eh, impression bi am mooy dañu war a ànd ak dal parce que ñun ñëpp tey. ku si nekk moom mënoon nga jóg nga déclarer sa candidature parce que nag ku nekk xam xam nga sa bopp ku nekk xam nga kan moo la mën mais ñun dafa am benn démarche bu ñu am mooy gëm la discipline de notre coalition. que ñun ñëpp ñoo taxawoon dañoo bëggoon président Macky Sall mu nekk candidat yàlla dogalul mu nekk candidat c'est parce que moom dafa am une posture républicaine gëm réew mi moom la ko yàlla dénk moo fi indi jàmm ak salaam donc nag ñun bu ñu taxawee ni dañuy déglu président Macky Sall pour mu choisir ñu un candidat je pense dañoo war am raison garder donc nag di lancer un appel à ses responsables à ses leaders qui se réclament l'héritier du parce que ñun li ñu gëm mooy boo amee njiit eh, da nga koy jox cër donc ñun président Macky Sall lañ topp moom la ñuy déglu ku ñu choisir le candidat man Ablaye Dieng ak sama mouvement ak ñi ma àndal Thiès ñëpp kooku la ñuy àndal liggéey moom parce que jàpp naa ni candidat bi ñuy choisir ça sera le candidat de la continuité de l' émergence du Sénégal parce que ñun dañoo ànd ak le président Macky Sall c' est parce que dañoo bokk ak moom vision pour que le Sénégal puisse euh, émerger président Macky Sall nag nekk ci loolu donc day jàpp naa ni waruñu créer rupture dañu war a continuer l' émergence du Sénégal donc nag ñu ngi wax euh, ces candidats qui sortent de n'importe où et de n'importe comment que ñu dal xam ni fii kenn rek fi nekk la seule constance c'est son excellence le président Macky Sall et man loolu laa gëm ku mu ñu jiital suba ñu xëy ñu ànd ak moom on fera tout pour euh, euh, aller vers la quête euh, des électeurs de Thiès pour qu'on puisse gagné euh, au première tour les élections de 2024 le compte de la coalition Benno Bokk Yaakaar. fekkee en tout cas consultation yi nga xam ne moom la mouvement Siggi jot na euh, te ki nga xam ne mooy seen njiit mooy Abdoulaye Dieye directeur bu aéroport international Blaise Diagne ñëw fii jàppale ñu pour que ñu mën a xool malade yi nga xam ne am nañu soxla pour consultation. te wax dëgg fi yàlla garab yi mu indi tamit macha allah mucc na ayib parce que tamit euh, garab yooyu yaakaar naa ne dina jàppale population yi nga xam ne ñoom ñoo fi ñëw. te di wax ne aussi euh, yàlla def na aussi dafay daf ñuy jox ambulance ambulance médicalisée donc ambulance boo xam ne lépp li nga xam ne moo war a nekk ci ambulance am na ko donc loolu tamit aussi nekk na loo xam ne day dooleel liggéey bi nga xam ne moom la ñuy def au niveau du centre de santé docteur Mamadou li te nekk na loo xam ne aussi ñun ñun ñu nekk ci centre bi dañuy polariser en tout cas euh, fanweer yi fanweer ak juróom benn poste de santé publique mais ñu polariser aussi ñeent fukki euh, ñeent fukki euh, poste privé donc pour wax leen ne rek Thiès district bu rëy la parce que ñu ngi am cinq cent trente trois mille neuf cent quatre vingt deux habitants donc yaakaar naa ne lii nekk na loo xam ne lu am am solo la te yaakaar naa ne aussi day jàpp si politique u président de République pour quand même dans le cadre si année social bi ñu mën a quand même gën a jàppale population bi si li nga xam ne moom la ñuy euh, liggéey te di leen wax ne spécialité yu bëri ñëw nañu fii si consultation yi maanaam ñi nga xam ne ñooy toppatoo si wàllu bëñ ñi nga xam ne ñooy toppatoo si wàllu jigéen ñu spécialiste neurologue yi nga xam ne ñoom toppatoo wàllu bopp ñi nga xam ne aussi ñoom ñooy toppatoo si wàllu mbirum jigéen ñoom tamit ñu ngi fi ñi toppatoo aussi urologie ñoom tamit ñu ngi fa chirurgien aussi tam chirurgien général aussi ñoom tamit ñu ngi fi ak pharmacien yi nga xam ne ñooy toppatoo si wàllu garab ñu ngi fi ak aussi lu ñuy wax médecine générale ñoom tamit ñu ngi fi donc pour pour wax leen ne rek ne en tout cas euh, consultation yi c'est des consultations de qualité te am nañ yaakaar ne Euh, population yi dinañ am soins yi nga xam ne soins yu mucc ayib la te di saluer en tout cas di wax ne prestataires yi nga xam ne ñoom ñoo ñoom ñoo fi nekk jóge nañu fu bari jóge nañu fu bari ba Kër Massa am nañu fi ñëw ñu nekk hôpital régional ñu nekk dixième donc wax dëgg fi yàlla euh, ñu bëri ñëw nañu fii jàpp nañ si liggéey bi te am naa yaakaar ne aussi dina nekk loo xam ne une réussite parce que yàlla def na consultation yi ñaari fan la te on est à jour demi-journée donc peut-être du ma joxe chiffre trop parce que mën na biaiser li nga xam ne peut-être qualité chiffre yi nga xam ne moom la ñuy am peut deuxième jour bi mais jàpp naa ne li fi teew comme ay nit yaakaar naa ne am nañu yaakaar ne chiffre bi nga xam ne moom la ñuy am dina nekk chiffre boo xam ne bu bëri la donc vraiment en tout cas lu dul remercier en tout cas Ablaye Dieye te am yaakaar ne doomu Thiès yëpp war nañu mën a def nii suñ ko defee nii rek lépp dina baax parce que tamit ñun ay fonctionnaire lañu dañuy liggéey pousser pour que Thiès am lu baax cees am lu baax toutes les régions am lu baax parce que quand même euh, li ñu war a liggéey du président de République rek moo ko war a liggéey mais citoyen bu nekk li nga xam ne moom la am yàlla jox ko ko mbërsëg te surtout par rapport à la responsabilité sociétale d'entreprise je pense que mu ngi koy doxal bu baax a baax a baax te balaa maa pare juste remercier la presse parce que ñëw ngeen fii ak doole te lépp lu ñu di def te presse taxawu si yaakaar naa ne en tout cas relayer ko day xaw a jafe donc di leen remercier bu baax seen teewaay di leen ñaanal yàlla yal na yàlla defal jàmm dool leen sutura dafa leen xéewal te en tout cas yal na yàlla nangu. li nga xam ne moom ngeen jot a def en tout cas ñun district sanitaire. ñu ngi fii pour accompagner conseiller euh, monsieur Ablaye Dieye par rapport aux différentes actions ultérieures te si kaw loolu vraiment maa ngi koy jox li nga xam ne en tout cas moom la ñu jot a def comme réalisation au niveau du district yàgguma fi waaye am na réalisation yu defar te am naa yaakaar ne moom su dugalee loxoom lépp dina baax donc merci beaucoup jërëjëf. li ñuy yëg mooy yàlla suñu ñu fekke lii ñu sant nag président Ablaye Dieye bu baax a baax di directeur AIBD yi aussi jiite mouvement Siggi Jotna lii nga xam ni defal na ko la population de Thiès en général la population de DVF en particulier ñu ko ciy sant di ko gërëm di ko ñaanal yàlla ndax lii mu def nii c'est pas évident dimbali na population yi ñi nga xam ni seen doole dafa néew ñi waroon mën a faju te amuñu doole faju ñoom ñëpp dimbali na leen yàlla na ko yàlla fay fii nag mu ko defee fi la man mii di wax tamit fi laa jàngee fi laa amee e en sixième en cinquante quatre kon nag fii ñu ko defee daf may rappeler lu bëree bare bëri ak bi bii nga xam ni jox na district sanitaire loolu am na lu bëree bëri bëri bëri bëri lu mu saafara kon nag Ablaye Dieye population de Thiès population DVF ñu ngi lay sant di la ñaan di la yàlla ñaan yàlla suñu borom yokk la yal na la yokk yal na la yàlla musal yal na la yàlla aar ci daraja Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf